dalal tey euh, suñu papa Iran Ndao euh, fa yéene waxtaan ak moom ci ñaar ba ñetti point ci actualité bi mais dañ koy bàyyi mu nuyoog askan wi ba noppi. waaw kay asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax yéen ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan sit bi di ñaan rek yàlla sunu kàddu gi fekk leen ci jàmm euh, yàlla dolli jàmm ci àdduna bi ci mbaaxam. macha allah. waaw Oustaz dañ bëggoon commencer waxtaan bi ci benn xew-xew bu am ajuma euh, bi ñu weesu muy euh, benn coow bu topp ci coowal euh, Oustaz yi ñu fi déggoon fan yële mu aju woon ci wàllu jeng taalibe bi mel noonu bii mu amaat Oustaz boo xam ne nee nañu jëf yooyu la jëfaat mais dafa yegg ci. talibe bi ci boppam bakkanam dafa faat mu am fukki at ak benn. bon ñu bëggoon a xam généralement naka ngeen jàngatee nouvelle boobu ak ban euh, xalaat ngeen ci am. nga xam nga nag euh, yëguma ko yëguma ko waaye mën naa ne bu amee lii ak lii yëgaguma ko. Euh, man dafa am lu ma waxoon bi ma demee Njaañ am lu ma wax benn site fan yi am lu ma wax rajo Sud FM ajuma paase booba sax yëgooguma ko mooy sama bopp moo ma la gënal du bañ naa la man daal man Iran ci daara sëñ Babacar si ba ma nekkandi nekkandi daa am ko jóg ma toog damay jóg keneen toog kon nekkandi la boo ma joxee sa doom ne ma day daw duma ko jël duma la ko wërali ndax duma ko jël soo ma ne duma ko jël soo ma daan nanguwu jàng duma ko jël soo ma ne day sàcc duma ko jël soo ma ne day taxawaalu duma ko jël boo ma ne nag dafay sama doom bu ma am yaakaar ma bëgg ko ma ci jàppale dinaa ko jël Serigne Cheikh daf ne nit ñi dañuy fekk euh, seen doom ba ñu am yaakaar ñu jox ko tubaab bi jël ki ñu amul yaakaar jox ko daara di nee na ki nga amul yaakaar nga war a jox tubaab bi ki nga am yaakaar nga jox ko daara gis nga tey man nga jox ma sa doom may ma di ca sonn ba dee fekk ko ci wala musiba am ca mais man jaraloo ma ko amul ñii seetaan ku ma jaral ma yoral la sa doom ba man sama kaso di ma ci fekk duma ko nangu euh, wax la leen nit man par parloowuma man damay far par parloo mooy nekk ci daara yii luñ def nga ne c'est normal dëggu non non non doxuma ci yooyu far mooy lan fa dëgg ne falaane man bokkuma ci association daara yi bokkuma ci mbootaayu daara bokkuma ci benn ONG bokkuma ci benn group man je suis seul avec Dieu tout ànduma kenn parce que man mënuma ànd man dama ko mënul mais nag su ma gisee lu jaaduwul sañ naa ko wax su ma gisee lu jaadu sañ naa ko wax yooyu yëpp mënoon nañ ko éviter man sa doom bi la te duma la ko téel duma ko def soo amee na ko am yaakaar jox ma ma teel la mii téye ba rey di ci am wala damm am ci wala tànk bu dagg am ci wala loxo bu damm am ci wala safaan am ci yoon jël ma teg ma ci yoon balaa may yoon di teg ci yoon ma delloo la sa doom nga tegal ko sa bopp ci yoon bu ñuy tëj tëj la yow te tey bu ñu tëjee sëñ daara bi est-ce que moom doom ja dana dana dem ca kaso ba tëdd ko fa du ko tëddalee est-ce que sax dana ko ca jàppale donc man li may lancer ustaas yi jàngalekat yi mooy jël leen ñi ñi yaru jël ñi ngeen mën a gérer ñitte seen i wuy ju delloo leen leen oustaz responsabilité yi ci parents yi la wala ci oustaz yi bongo non no non pas oustaz. pas oustaz bu nangu jël. waaw xam nga euh, parents yi ñooy daw responsabilité. parce que yow sa doom bu téye te su amee njëriñ yaa koy jëriñoo mais gérer ko. kullukum raain wa kullukum mas'ulun an raiyatihi yonent bi dañ na kenn ku nekk ci yenn sàmm sàmm bu ne ëllëg dañ lay laaj yow. acte nag mi suñ ci waxoon musiba bu dal ci état mais bala ñoo jëli Iran yow mi moom site bi danañ la danañ ko tëj oo ki moom site bi ci amul leneen loo rek la donc réponse qu lii ko ahlikum naara yàlla nee fegal leen seen bopp muusi ba fegal ko seeni njaboot seeni cheikh ne deferul déféré mais man boo dawee responsabilité jox ma sa doom te xale bi jubul duma ko jël man daara jéema ne nekkandi fa ku indi xale yi ma la wax gis nga boo ma nëbbatu xam nga Sénégal yi ñu ci bari duñ la wax liñ nar da nga gis ku ma indil xale sëñ Saliou di indi xaleem jox ma du ma wax dama ko ne du ma jël koy da mu ne noonu Iran ba xale bi du daw buy buy départ xale bi départ xam nga nu may def gannaaw bàyyi na fa numéro téléphone dama ko daan xale ba daw la wëril pare naa ca wëril lépp loo ma ne du ko def bu ko defee ma woola ne def na ko demal nga lijjanti ko du ma dóor du ma ca yeewante du ma tëj du ma jéng du ci def dara parce que lam may jural a tax conséquence sama doomi bopp sax duma ma ko def waxuma la ak doomu jàmbur man bëgg sa doom baax du tax man ñu may indi yàq sama àdduna est-ce que jotul nguur gi tamit dugg ci dugal ci loxo bi. waaw xam nga nguur gi mënuñ cee dugal seen loxo. ndax ña tëye ci école ba la yóbbu ca daara ji <laughs> looluy problème bi ah parce que ku ci école ñii yóbbu ko daara demal nga yóbbu ko ca daara mais looluy problème bi te nguur gi itam nañ ciy dugalee loxo mooy xaw doy waar xam nga bu fekkoon ne daara Iran tey da ko sampal daara comme ni mu amee ay école am ñun ñu nekk seeni enseignant di enseigner école yi ñoom ñoo ko tabax di ñu fay xale yi comme li tubaab bi am am seeni bourse bu leen neexee ne système bi dañ koy changé mais oustaz ay ay ay nit lañ ñoo xam ne rek dañuy jaayanteeg seen euh, borom di jàngale mais jaayante googu nag laa dul nangu man nga jox ma koo xam ne daf muy fitnaan xam nga nit dafa am xol li li tax nit di rey xam nga nu tudd alxill la ko alquran tudde wa nazana ma fi sudurihim min xillin yi nga loolu benn lumb la bu fuddutoo mën nga jam nit paaka mën nga dóor nit jaasi mën nga ko dóor yet mën nga ko fetal moo tax yonent bi daan wax ne soo meretee fekk nga toog nii bul jóg su fekkee nga tëdd bul jóg su fekkee nga taxaw toogal soo doon génn bul génn soo jegee ndox naanal soo góoxee ndox rek lumb bi daal di rës moo tax mag ñi di fëgg sa dënn naan naanal naanal rek am naanal bu ko defee nga naan dal di nooy ñooy la toogal nga toog lumb boobu moo rës ku rey lumb booboo la reyloo. waaw wax affaire rey fan yi bëri na waaw xam nga man de li ma wax président rek xam nga moom <laughs> ki bind lom mooy sunu borom. xam nga lu wax ko rey rey leen ko an nafsu bi nafsi alquran loolu la wax wal juruuxu xisaas ku jam-jam leen ko nattal jam-jam bi yow yaama jam paaka fii dañuy jël paaka bi nas ko ci roof ko natt ko ba mu nii la toll ñu jël sa loxo jam ko ba mu yegg si fii ñu rocc li ma dal dal la ñu bokk dem faju ji droit de l'homme ngoog waaye man may sotteeku deret ñu ne jam leen ko ñu ne non droit de l'homme da koy bañ ki bind l'homme waxul loolu daf ni jam-jam biñ jam Iran ke ko ko jam nañ ko ko jam ñu bokk faju ji rey nga ñu rey lañuy ñuy ñaari néew ñu bokk suuli waaw mais insécurité baaxul surtout réew mu mel ni Sénégal li leen bàkke woon bu njëkk bàkk waa ngi bëgg a yàqu te xam nga fii lu ñuy def wax naa ko ba tàyyi ne sénégalais du wut solution commentaire rek solution xalaatuñ ci dara commentaire rek yi nga dangay fekk fekke naa ma romb benn accident Jakarta waa jaa nga tëdd di def nii gars yi ne fu naan wuy waaw borom oto bi la ma ne waa ji ñëw ma ko kii day dee du ngeen jël kii yóbbu hôpital ngeen nar a commentaire ba mu doon ba mu doon néew ma ne ko mais yéen bu ngeen taxawee ba mu doon néew ci wàllu droit dañ leen war a àtte parce que droit loolu la tëral droit islamique ki nga war a taxaw nga seetaan ko ba mu dee yoon dalay àtte yow mi jël leen ko yóbbu ñu doog koo lagar lagaree mais dañ koo tiim di commentaire oto bee nekkul ci dëgg wala jakarta bee nekkul ci dëgg te kii war a dem kërug dëgg dee benn yoon fii duñ ut solution commentaire rek commentaire commentaire sur commentaire solution zéro te àdduna du noonu Serigne Cheikh nee ki jubati kenn du ko siiwal nuñ koy def dañ koy sauver fexe ba mu génn ci njubati jub mais doo toog Iran day màndi Iran day sàcc Iran day màndi Iran day sàcc rek sud bu ne jël wax loolu déedéet solution ki fi wane woon ki fi jàppoon keroog kat muy màndi léegi bàyyi na sàngara moo nekk DG bërëb sàngam diw mi daan sàcc kat bàyyi na sàcc moo nekk DG ba bërëb sàngam c'est ça loolu mooy mooy mooy évolution parce que ñu ngi évoluer li baax mu ngi yokk li bon mu ngi wàññeeku su yàggee mbaax rek ay aye c'est ça. fan yi ku ñuy wax Seydi ma wax ne xeetu sineebar bu mel ni yàmba mu ne da koy jaaxal bu ñuy tëye ay nit chaque jour di leen teg ndax loolu mel ni ku xaw a junj ne dañu war a xoolaat loi bi wala wala jàpp nit wala yu mel noonu nan ngeen ko jàppee. <laughs> xam nga mag ñaare du ma wax ci waxi nit man waxu nit intéressé wu man li may intéressé rek waxu yàlla parce que ci laay wax te ci laay dox. sunu borom daal moom wax na ne alxamr lépp luy jaxase xel lépp luy perturber xel yàlla nee na loola baleen ku yëfu seytaane la carte yi tere nanu ko doonte carte du fi jóg waaw yàlla moo ko wax sàngara dorog li ci charia wax muy ku ko jëfandikoo ñu jàppale nga màndeeg màndiwoo waaye wuur na ni jëfandikoo nga ko yàlla nee na nañ la dóor sama nii na jalda quatre-vingts yar lii dee la góor gu mag gi wax quatre-vingts lañ la ko dóor xam nga ku mu tollool kàddu ku mu tollool àtte ku xas nit sa site bii tey ma dem xas ci nit wax ci moom lu ñaaw yoon dafay àtte ñu dóor ma quatre-vingts yar ŋàññi nit baaxul donc sàngara mënul dagan te am naa yaakaar itam ne amul benn nit waxuma jullit benn nit bu nite bu xelam war a xalaat ne naa voteel ñu daganal sàngara gëwuma ko man itam parce que xam nga lu tax yàlla mi tere bu ngeen dajee loo koy wax lu taxoon ma tere nga daganal looy wax ci lu mu yàgg-yàgg nga dajeeg yàlla sàngara ak yàmba yëpp yàmba waaye yàmba gën a al alak alkun yëpp moo dàq alagaate yaa ngi loo xam ne boo ko tuxee dootoo fenee Seydina Omar est-ce que xam nga ne mës ta jëfandikoo dorog ci saaba yëpp musu ko laal su gars yi daan naan xonju raisin bi nëbal ko ni dur buñ ko joxee kaas dina laa ashrabu maa yashrabu aqli du ma naan luy naan sama xel parce que boo ko naanee jëmul ci sa biir ci sa xel mi la jëm da koy naanaat ti nit ku génne xel ci moom dof nga koy tuddee te Omar du tay di dof waaw la ashrabu maa yashrabu aqli lii la Omar daanu nit di tey du def loo boppam voilà kenn du ko def waaw laasur maysur baqli xoolal yow ni nga correcté nga dem tux yàmba baa nga naan sàngara baa nga jël pëndax bi léegi nekkatoo nit sa braquet dañ na sa cravate dañ na sa làmmiñ damm na say cër damm na xale yi yàpp nañ la yoo mandikat bi nga di leen dàq comme rakki dof mais loolu loolu même bu yàlla waxuloon daganul yow war ngaa xam ci sa nite ni lii du alalu nit waaw ah, même bu ko yàlla tuddul dafa am loo xam ne psychologiquement da xam ne lii lu mën a nekk la ak lu mënul nekk ci sa xel nga koy xamee ci sa mantiq sa logique moo la koy xamal mais nag euh, du lu ñëw ñu ne la aaya dafa am loo xam ne da ngay la alquran wax ne laalahum yatazakkaroon yatadabbaroon yooyu alxuraan da koy tudd lu bari ak ulul albaab ulul labsaar yàlla nee mbir mi xel da ci am solo waaw waaye seetal sàngara nga màndi wala ñu ne dañuy voter loi pour yàmba mën naa jàll fu mu jàll jëm nit bu doroog yow mën naa tiim doomam mën na yegg ci yaayam mën na def lu bon lu ne voilà waaw saas euh, ñuy rafetlu tontu bi mais sànq da ngeen wax affaire charia bon mu xalaat loo ñu tamit benn débat bu am jamono ji mooy diggante maam Matar Gueye bu Jamra ak Rangou au delà de coow li dañuy wax ne ONG bu mel ni Jamra est-ce que war na taxaw ci dëkk boo xam ne ni euh, dafa am ay jullit am ay chrétien am sax ñu gëmul yàlla mu bëgg imposer diine wu am na ñu ko jàngatee noonu maanaam ne war nañu bàyyi tamit ku nekk def euh, lu ko neex euh, voilà quoi nan ngeen jàngatee débat boobu ci biir coow Rangou ak ONG. waaw xam nga man euh, lu ma lu ma xam dama naan la xam naa ko lu ma xamul ne la xaw ma ko diggante baat boobu xaw ma ko woon benn site moo fi ñëw. ma tourner si di ba pare moom mu am fu mu demoon ma wàcc di ñibbi mu kar ma ci mbedd mi ma ne ko duma ma duggaat xanaa ñu def ko fii mooy bi ma gis ma taxaw di wax ci maam Matar gi mooy boobu ci biti laa ko defee xaw ma ndaw sus xawma ko rango xaw ma ko wallaahi wal quraan xaw ma ko man gis nga fi may gis nii lu bëri man duma déglu duma seetaan damay wax toujours ne bu ma xoloog yow wala nga xoloog man baa ma wax wax nga defe ne yaa ko man du ma wax ci kaw kan man du ma dal ci dew nit yow yaay sonn mais man du ma sonn parce que du ma la seetaan <laughs> man du ma seetaan kenn bañuma ko jot laa amul yaa ngi ma fekk ni ci ay xat-xat uh-huh. Uh-huh. donc loolu moo ci ne mais man li ma gëm ba xam nga lu neex waaye def jaaduwul loolu du wax non non non lu neex waay def jaaduwul c'est pas normal réew bu fekkee lu neex waay def xam nga lu mu tudd ci tubaab anarchie la tudd est-ce que anarchie baax na ci kër say ñeenti jabar rayante doom domi lu neex dom doom def lu neex jabar def yow mi boroom kër dorog yow nga léegi nga dee sax mais sa diine bi lañ war a jël léegi ONG war na jël diine mais déedéet xam nga li ma bëgg a wax mooy ku ne nañ ko bàyyi mu def lu ko neex déedéet soo demee ci diine bu yàlla wàcce laa wax yiwa di amu ca mu leer amul benn diine bu yàlla wàcc sant nit ne ko lu la neex ngay def lu ci yàlla def li ma neex def ko loolu yàlla def li ma neex def ko bul def lu la neex parce que amoo coobare wa ma tashauna illa an yasha allah rabbul alamin kon donc amuloo coobare Jamra nag ca Latif la commencé woon Latif suma xarit la woon daje nañ gàmmu caaro yi ma di ko gàmmu miinantewuñu bi ma paree war a commencé ma ne ko ñu yeewi li mu ni mukk dama lay dégg te musuma la seetaan ba ma gàmmoo pare def na ñu mel ni Iran dañ leen war a daggal salaire ba mu fa jógee keroog Tamba la jëm moom yàlla ko euh, dimbale woon su gisee lu bon ci réew mi baa baaxul day gaaw a alerté moom loolu ku ne xam na ko ci moom ja mais dem na mais ba tey jamraan fi ñoom ñi fi nekkoon bokkoo moom it suñ gisee luñ jàpp ne rafetul ñu alerté rek du question dañuy imposer diine non parce que diine kenn du ko imposer kenn du imposer parce que laay kiraa fi diin alxuraan wax na ko laay kiraa fi diin xat tabayyana rushdu min al-ghayy fa man yakfur bi taaxut wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwati l-wusqa lan fisaama laha donc <laughs> diine amul loolu mais nag diine moo santaane soo gisee ku jàdd nga fexe téye ci loxoom tegaat ko ci yoon bu ko nangoo su ko nanguwul la la war mooy wax pare ci parce que alxuraan xul rek lay xul xul xul waxal waxal mais du du dañuy imposer parce que dañuy gis loo xam ne par exemple jëfin bi man nag bokk na ci suma habitude man su ma la waxee ne génne naa ñu bari sax du benn du ñaar man fekk gaare naa ci buntu baar xaw ma ne baar la man may déposé oustaz bu ñuy wax maxtaar kooku wàcc ma seen jigéen bu yor cigarette maa woo ko ne ko eh waaye yow kaay mu ne ma boo ma soxlaa fekk si ma ma ne ko fa mais yow jigéen dina tux mu ne ma lu soyoon yow lu ci soy yoon la ma wax ma ne ko mais soxna si baal ma da kaay rek kaay ne ko wuyul ki Iran la mu ne ah ah bon mu ñëw ma ne ko cigarette baaxul xam nga rajo Sud FM mu ne ma waaw ma ne ko fekk ma fa ajjuma ci miti bu ma paree émission dama laa soxla xam naa mu xalaat ne ci li mu ne laa ko soxlaa ndax ci baar laa ko fekk mm-hmm. waaw ajjuma mu ñëw sol lu garaaw mais garaawul ci man parce que fi ma ko bëgg a jëmee tax bi mu ñëwee ñu waxtaan ma ne ko dama bëgg ñu waxtaan nga wax mën a dëgg rekk lii ngay def lu la ci dugal mu expliqué ma yaayam la dese doom yi mu am yaayam ay rakkam seen lépp moo ko yor seet na seet fu mu jaar amu ko aussi bi muy xale xawma papaam da ko yu bari mu lim ko daal ay tolof tolof ma ne ko bëgg nga liggéey mu ne ma waaw ma ne ko soo ko amee bàyyi lii mu ne ma waaw fi ma toog laa téléphoné nit kooku kilifa li ci réew mi léegi léeg daf ma naan Iran soo bëggee ñu bàyyante tudduma ci rajo wala télé dama lay ba abadan maa ngi la koy ñaanti bëgguma laa ba ndax dama laa sopp ma oo kooku téléphone sëñ ne ko ndax mun nga ma fekk ci Sud FM ne maa ngi Dakar bu dee da nga fee yenn du ma ñëw ma ne ko waaw léegi ma wax la li ma lay doyee ma wax ko ko mu utal ko palaas mu commencé liggéey ndaw si boo ko gisoon buñ ne la yi da daan taxawaalu ngeen du dëgg. soppeeku na. julli muuru. kilifa gi nee na ma bés am na ko fay tux mu xataraayu ci kaw. nan ko mais yow bi ngay taal fii na ba patron bi ñëw ne ko wax na dëgg wàccal ci suuf tii da daan tux di def lu ne loolu la ñu alquran sant ku réer gindi leen ko waaye waxul ku ngeen diigal ko hmm. kenn waxul la koy làpp nga di ko naj am déet koy làpp kay dangay ngay na da ngay làppe fii da ngay làpp ñiy naj ak di la weer da ngay dem ba ma tey ngay doxe donc loolu la diine santaane ku gëlëm gindi leen ku gindi leen ku jaaxle jàppale leen social ci réew dafa am solo du xaalis rek nit danga ko dimbali ci xalaat danga ko dimbali ci xalaat mais du xaalis rek mooy social xalaat sax social la te moo ëpp doole ci social yi ca sax moo tax maam euh, maam Matar man xam naa ci moom tuuti ñoo bokkoon def nañ liggéey moom daf nañ liggéey maak moom donc xam naa ci moom amul xolu tëj nit déedéet man xam naa lu amul xolu def nit lu bon parce que doxloo na ma yu bëri ñaan na ma ko te ñoo dox nangam Iran doo dox ci nangam doo wax ci lii kooku du tëj lu nit mais nag yonent bee wax ne man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbi wa dalika addaaful iman ku gis safaan ci yéen demal nga dindi ko laaj kii lu ko dugal ci li boo ko xamee nga génne ko ci dugal ko ci lu baax soo ko mënul nga def li jàmm def waxal seet ñoo waxal bu dee état mën na ca bu dee borom alal mën na ca nga oo ko ni ko ndax mënoo soutenir kii mënoo koo dindi gisoo ku ko ci dindi naqaru la ko waaye du ngëneel ndax ko sañoon mën a dindi baa nga mën a dindilu c'est lii la Muhammad alayhi salaatu wasalaam alors que loolu la man noonu laa gisi jàngatee mais jàngatewuma diine bu ñuy imposé parce que amuñu diine diine yàllaa ko moom maliki yow mi diine yàllaa moom diine kon ñoom amuñu diine bu ñuy imposé Sénégal nag moo bindoo noonu gis nga boo ne sax yàlla am na da nga gis ko bind fële na la ko la ne am na est-ce que da koo gis fu yàlla ne daa xeesam daa ñuul daa njoolam daa gàtt maanaam Sénégal la bindoo noonu loolu nag ñi am jot a koy def gaa yi nga xam ne jëmuñu faan ñoo yor téléphone yi rek Iran mii day fen rek avancé ay diw mii waxul dëgg waay xam nga kii moom kii génn kii benn waay la boo xam ne dafa paan cerveau bu paan baaxul. Mhm. moo leen di dal mhm. voilà. xam naa laaj bu mujj bi lañuy kii mooy fi ngeen daanelee sax dañu seetlu depuis benn moment da ngeen euh, doon xamle ne par rapport ak ziar yi ngeen di organiser soxna su président de la république jàppale na leen ci. am tamit euh, yeneen wax yu ngeen wax ci moom président ci boppam ba ñenn ci askan wi dafa mel ni ñoom euh, accueilliruñu bu baax seen wax jooju dafa melni ñom même bu leen daan déglu sax wax jooju dina tax ba euh, duñ leen déglooti wala buñ leen déglooti du melni comme niñ ko daan defee naka ngeen jangaté affaire bobu jangu ñuko parce que loo ngay jangat aussi ñom <laughs> koku sen affaire est ce que xam nga lenn. Mhm. man léeg-léeg nit ne dama lay déglu mané la waw jëri jëf yow mi déglu sa intérêt la. du intérêt ki ngay déglu. ya doon déglu. Mhm. to sa affaire la. dinaa la jox benn exemple Cheikh Béthio laa lay joxe exemple bi ñu ko àttee pour war ko tëj wax lañ ca nar yëpp mardi la ma liggéey si moom leen titre ci journaux ci journaux yi nekke booba yàlla àtte na ba pare su fekkoon àtte nit jàll na da dégg xeetu ñaawteef bu ne ci tele yi ak rajo yi mais bi àtte yàlla jàllee ñëpp seen commentaire rafet na mën naa joxe ñam mën naa bernde mën naa lii bëgg na sëñ Saalu noonu la réew mi bindoo man nag gis nga kaay ma wax la leen su ma amee xarit man yow nga lebal ma fekk ma ca jàkka ja lebal ma parce falaa am su ma lay fay yow dama lay fekk fa nga am bu dee ca baar bala bu dee foo mën a dëkk danaa fexe fekk la fa ne la li ma lebaloon mu ngi la ngay def sama yoon nekku ci sama yoon nekku ci man Iran man ku lu ma xastee mii kenn mënuma ko baloo fii moom yàllaa ko dëgëral te yàlla bindul koo xam ne dinaa la suur calculer ci sama wax ba ma calculer la sama jëf ku dul malaaka su ma borom ak malaaka yi fii ku ñuy wax raqib moo fi ni yàllaa ko tudd ci alxuraan lu ma def ci safaan lu baax baa ma wax ko ci mbaax kii moo koy enregistré fii atiit moo fi ne muy firi jalgati lu ma def ci lu bon kookoo koy bind nu ma la ciy boolee xanaa kon ma am jot nu ma ciy boolee commentaire kët bi xanaa kon ma am jot yàlla bind ma boole ma ak ñaari malaak bii raqit bii attit mu ni bii bu Iran defee lu baax gaawal bind bii bu Iran defee lu bon may ko trois heures de temps su tuubul bindal benn bàkkaar lu tax may calculer nii ci site internet yi lu tax may calculer mbindeef muy déglu Iran lu ci sama yoon naa calculer ñi ma booleen ak moom mi ma bind man bu ma xasee ni la nuus ni duma la balo yi nga Marème Faye Sall su ma xarit la man ñëwuma pour kenn déglu ma bu message bi jàllee yàlla fay ma pare naa li ma gëm ak li nit ñi gëm du benn man maa ngi liggéey rajo Sud FM di liggéey fii Sen TV yor daara yi sëñ Babacar Si nekkandi fa nekkandi fa di conférence di gàmmu benn dërëm duma ko fayee kon bu ma xaalis ñu lu du ma wax li may wax te yooyu bu ci ne salaire la. Marème Faye sama xarit la. te daan jaay crème tamit. a jaay crème jaay ndox jaay galaas Marème sama xarit la xoolal kenn mënul tax. dootul du ma ko génne fii. man gor laa. gis nga suma deret bii soo ma joxoon cinq francs gañe nga ma gaañ nga ma. waaye dinaa fexe ba fay la nag mën noonu la ma yàlla bindee loolu su ñoon newu ci te nga mareem yàlla na ko yàlla bàyyi mu dund ba ca kanam mais bu fi jógoon tey danga naan du xanaa mareem bii mi yow fii ku dee baax Sénégal duñ faj dañuy dëj ku dund bon ku dee baax man fekkee naa nit ku ñuy suuli keroog laa mas ànd ci robi boobu gaa yi ni kii wëlliyu la ti ña ko wax toog naa ñu saaga ko ban réew la ñu ne te gis nga ku fi yàlla may booleeg nit nga déglu ci nit ñi ji nit ñi ku leen déglu sa bopp sax ñu yàqale ko xanaa xamoo jigéen a ngi nii xeesal daa déglu ay nit ba yàq deram dañ ko iñaan yi ñuulaay bi rek naan ko wallaay ajaa boo xeesaloon da ngay rafet rek mu xeesal ñaaw ñu kontaan ñoom ñëpp toog di ko jëw ne ñaw teem bi mu yoroon ba pare di ko yàq nit ñi ku leen déglu ñu dox sa digganteeg sa bopp waxuma sa digganteeg say bokk waxuma sa digganteeg say wóllëre sa diggante ak sa bopp man daara laa gëm gis naa ni leen li maram di jàppalee daara noonu laa koy téye sama yoon nekku ci ku ne am nga koo téye te Iran waxu ca ku ne am nga koo téye ci yoonu Iran nekku ca ñeneen ñiy waxtaan it nañ def li may def rek xanaa xamuloo ne site internet yi duñ gañe dara ci kii waxtaan yi. du ñàkk gañ bu ngeen amee vie yu bari du jur xaalis. du ñàkk de. day jur xaalis defu leen ko ci maali foro. mi mi sama gannaaw gi xanaa xamoo boo tegee ñiy commentaire di wax safaan yépp seeni compte buñ demee duñ ca fekk dara lépp wiiri nañ ko ci compte Iran li jar nañu di la daggali saaga suba ba ngoon ni ñuy partagé nga am million vie mu jural la temps ci xaalis noonu la ñuy jëlee sa der lu ci waay wax ñu jël la mu def def ci sa compte moo tax wax ju ñaaw ci nit gën wax ju baax ci nit lu tax fumier mooy tos du xam nga tos cabinet yi fas yu xar yu bëy boo ko sottee ci suuf tool boo ci jiyee muy gën a naat fu mu nekkul ki nit ñi dal ci deram di ko wax safaan bis bu jóg ñu gis muy gën a kawe mooy tos voilà